bienvenue sur Yewwi TV et merci de nous avoir suivis alors tu es que sujet que nga xamante de dafa jëm ci football alors euh, c'était tout simplement la baisse de forme d'Edouard Mendy avec Sadio Mané bu il est nommé euh, parmi les cinq prétendants du Ballon d'Or alors sur ce dans un instant on va essayer de prendre la réaction des Sénégalais merci. frère ziar J'espère ah, la. J'espère que tu vis le foot. Oui, ouais, ouais, je vis le foot. exactement je pense que c'est dans le match bi Bougon euh, Chelsea ak euh, Real ñoo doon tase. waaw waaw c'est seetaan naa ko waaw alors comment vous avez vu le match. bon match bi surprise la woon quoi waaw. je que c'est une surprise. surprise là, surprise Là, waaw. parce qu'en fait bon surtout euh, gars yi bu ñu dugalee deux buts noonu foogoon que bon presque match bi Chelsea en faveur Chelsea la quoi Bon, là, laa quoi. mais à ma grande surprise bon ma gis ni que bon bu même bu ñu dugal troisième bi ma bon moment où sax maa ngi woo sama benn copain ñoom famille Tandiogora famille Diakho maa ngi lay wo sa mu ne ci ca Real ñak na bu paré bon foofu lay euh, égaliser foofu lay dugal bi euh, benn bi bi quoi après bon vraiment bon surprise la quoi vraiment. donc finalement Real mo gagné. Real mo gagné Real mo gagné. alors euh Edouard Mendy le cas de Edouard Mendy gis nañu que ne après la CAN Edouard Mendy dafa mel ni que dafa nek si en baisse de forme lan moy expliquer loolu. bon euh, coono bi waa kii ak kii bi aussi bon man luma ma mënti wax rek dafa ro a gëna gurguru wat quoi on a vu que euh, Edouard Men exploit actuellement aussi il prend beaucoup de buts donc euh, tu penses que voilà effet voilà moins bon bon mais en tout cas bon jàmbaar la daal wax bon alors ça je bon Ballon d'or Ballon d'or comme beaucoup cinq euh, bon ñu ngi ñu ngi ñaanal incha parce que bon Sadio Mané bon mu ngi bon d' après li ñu mu ngi am évolution quoi mu ngi évoluer nank nank quoi. mais comment vous avez vu euh, les exploits de Benzema gis nañu que contre PSG Benzema a fait des exploits contre aussi euh, Chelsea hier rek def na ben exploit bu nga xamanteni c'est remarquable avec tout cela est ce que tu penses nettement que ne Sadio Mané war na jël ballon d'or devant Benzema. bon bon en fait na bon man dem na bon démb mo waral démb na man bëggoon que Real to quoi parce que pour ça Mané ok merci beaucoup merci. merci c'est partagé. ça va grand ñu j'espère que y si mais grand j'espère que c'est un match entre entre Real Madrid et Chelsea. Waouh, waouh, donc en tant que sénégalais yow kan supporter bon man bon Chelsea bon xam rek ndax Edouard nga fa quoi. mais gis nañu que ni Edouard temps dafa nek ci en baisse de forme quoi lan moy expliquer lol wa xeyna manam baisse de forme la rek comme manam day tollu crise quoi day mën na crise dal mais ça va passer ça va passer day bay quoi. ok c'est bien bon gis nañu que Sadio Mané également euh, les cinq prétendants pour que voilà ñom ñu nga xamanté ñoo war a jël ballon d'or mom cité nañ ko ci quoi. est-ce que gis nga ne Sadio Mané mën na gagner Ballon d'Or boobu nga xamante ne tudd nañ ko ci. ah mais bien sûr bien sûr bien boo xoolee moom performance yi mu jot a def ak fi mu jot a jaar ak fii mu toll Coupe d'Afrique bi jaayante na ko ak Ligue des champions bi ak yeneen ak yeneen jël na lu bëri quoi. léegi comme tey jii ñoo ngi jëm Coupe du monde bu yàlla dogalee ñu sori ci wala bu yàlla dogalee sax ñu jël xëy na mën na ko waaw. gis nañ que ni en Ligue des champions Benzema mu ngi def des exploits extraordinaires est-ce que dina yomb ci Sadio Mané mu jël ko ci kaw euh, Benzema. waaw mais c'est normal parce que xam nga maanaam concurrence fépp la am waaw concurrence fépp la am mais Sadio maane moom man gëm naa ne moom wax dëgg yàlla bien vrai Benzema mi ngi def ay performance mais Sadio moom it macha allah wax noppi waaw ndax foo xoolee fan yi match yëpp yëpp yëpp mu ngi koy dugal di def ay affaires saa bu ñu soxlaa bu ñëwee dugal bu ñëwee waaw ngi ci bon dynamique quoi dëgg yàlla. ok grand merci beaucoup. ok grand merci content naa trop. grand ñu ngi ziar. ça va. grand da ngay le football là. Ah? football wa. damay seet football wa. donc Massi démb je pense que c'est nga ko entre Real et et euh, Chelsea. Wa Real Chelsea. Wa Edouard Mendy moom définitivement na quoi. Worcester moom rek moo manqué quoi. Edouard Mendy meilleur de goal quoi. ok grand dañoo constaté que ni euh, après la CAN Edouard Mendy exploit il nga xamante ne mu ko doon def defatul ko quoi actuellement on dirait que. voilà dafa lekk si en baisse de forme lan moo expliquer lool daa mel ni waaw mu ngi si forme mu ngi fa forme daa mun góol quoi léegi si coupe de monde bi rek la ñu xaar ko foofu quoi. ah mais gis nañu que ne match aller bi entre Réal gis leen bii bu nga xamante ne Edouard mii ni may na ko donc loolu lan moo koy expliquer est-ce que ça est-ce que Edouard sonnul exactement. Edouard sonnul xam nga tubaab yi rek moom mun football quoi Benzema moom moom. moom moom moom mun football quoi daa nekk si instant yii forme quoi. exactement yow daal tu vois que ne Benzema moo nekk ci en forme. waaw waaw Benzema moo nekk si en forme instant yii quoi. mais revenons sur le cas de Sadio Mane Sadio Mane euh, mu nga war a football tey alors lan nga xalaat ci moom. Sadio Mane ah Sadio Mane day am victoire rek day am nam quoi parce que Sadio Mane instant yii nii moom kat yi dem mu ngi si forme mu ngi si lépp quoi exactement Sadio Mané mu ngi ci forme alors récemment ñu ngi tudd que les cinq prétendants pour que voilà ñu mën a ballon d'or moom nommé nañ ko ci cité nañ ko ci est-ce que tu penses que Sadio Mané war na mën ballon d'or ah mun na am ballon d'or bi parce que lekk na coupe de Afrique moom mu ngi si waajal coupe de ligue des Champions, bi quoi mun na indi jël coupe de mun na jël ballon d'or Afrique bi jël ballon d'or mondial bi loolu yëpp mun na am quoi. alors Ian ñu ngi gis. Euh,

def na devoir am yóbbu na équipe am coupe du monde waa merci grand ñu ngi lay sant di la gërëm.